maire chargé de la technique maa ngi leen di présenter li nga xamante ni moo nekkoon suñu objectif jiital ko ci suñu programme seetal suqali sàmm biñ ñu installé le 12 février ñu def passation le 15 février bi passé dañu tëraloon ñu naan feuille de route feuille route bi nag moom lañ leen di présenter fii wax leen ci lan lañ ci jotagam def lan lañ fi fekk ak fan lañ jëm ci cinq ans yi phase suivante li ci njëkk domaine technique mooy li nga xamante ni ñëpp a kay gis ñëpp a ko bokk muy tali yi di éclairage di assainissement bi di stationnement bi di travaux yu bees yi ak les grands travaux yi nga xamante ni moom la monsieur le maire Serigne Mboup fas yéene def ak Kaolack ci suñu feuille de lii mooy la situation bu ñu fekk fii ak Kaolack li ngeen fekk à gauche mooy les entrées de Kaolack mooy entrée Kahone bi entrée bu jógee Gossas entrée Lindiane bi ak entrée bi jógee Koutal lii lañ fi fekk ak centre ville bi actuellement moom noo nekk nii à gauche suñu objectif mooy à droite bëgg nañ entrée Kaolack bu nekk ñu def benn monument kuy egsi xam ni yow egsi nga Kaolack yii monument ñu tuddee ko Baye ñas yi ñu tuddee ko sëñ Basirou ak yeneen kilifa diine yu nekk ci dëkk bi tali yu mel nii moo am Dakar moo am Ranérou moo am fépp te ñun fii Kaolack amuñu ko ñu ngi ciy liggéey ak waa Ageroute di ci liggéey ak waa Promoville ak li nga xam ne budget mairie bi pour ñu def ay tali yoo xamante ne tali yi nii lay mel te ñu ngi ci ay signature de protocole ngeen xoolaat tamit ci suuf ngeen xoolaat ci suuf suñu centre ville actuellement nii la mel à gauche taxi yi parce que c'est pas organiser mais à droite suñu projet nii la ñu bëgg def fii ak ay weer centre ville Kaolack nii la ñu bëgg mu mel te commencé nañ ci ak ay partenaires si ñeen nañ protocole yi travaux yaa ngi en cours pas suivante régie ñu am un projet de pavage su ngeen xoolee ñu ngi pavé soo jugee cœur de ville gendre gendarmerie bi jëm camp militaire ñu ngi koy pavé lycée technique ñaari tale ñu ngi koy pavé actuellement am nañ un projet de pavage de 30 mètres carrés diggante mairie bi jëm ba passoire mooy première bande bu gudd bu verte ba ngeen gis beneen bi moo jugee BHS bi jëm ba rond point mairie na mooy deuxième band bi fii ci semaine bi di ngeen gis ñu commencé travaux yi incha allah de pavage ci loolu tamit bëgg nañu buntu kër ku nekk suñu fi yàlla bàyyi ci suñu programme ku nekk sa buntu kër dañ koy pavé ba dootuñu gis suuf ci buntu kër yi régie léegi dafa am lu ñu naan le désencombrement mooy soo leen xoolee Kaolack Sénégal de façon générale mais Kaolack en particulier da ngeen di gis camions yi dañuy taxaw fu nekk am ay oto yoo xam ne ñu ngi fi ay ati at gaare am ñoo xamante ni aussi dañu installé wu ba déborde ci route ba nit ki suy romb ci trottoir bi moom ak tali yi ñooy bokk yoon bi loolu nag biñ ci njëkkee dañu am benn équipe bu ñu mettre en place bu tudd SDA société de encombrement et d'aménagement muy Babacar Diak moo ko jiite ak xale yi ñuy liggéey liggéey bu am solo ñu dellu si waat régie loolu su ngeen xoolee def nañ enquête ci quatre route nationales yi bi ci njëkk mooy route bi jugee Kandé Garde jëm ba Kanda beneen bi moo jugee gouvernance dem ba sorti ngaan bi mooy yoonu Gossas bi beneen bi moo jugee route nationale école des filles jëm ba garage Nioro beneen bi Medina Baye ba entrée de marché Medina Baye bi ñu defee enquête ci deux semaines ñu gis ni am na 166 personnes yoo xam ne légal nañu mooy maanaam ñoom am nañ kayit ci mairie bi ba am occupation mais 728 yëpp ñi nga xam ne dañu installé wu ci tali bi ci mbedd yi loolu dañu ñëw installé te Lamine Ndiaye son donc loolu biñ ko defee ñu gis ni am na sept cent vingt huit personnes yoo xamante ni dañu installé wu de façon irrégulière dañu ñëw rek installé wu noonu te mairie bi xamu ci dara léegi loolu lan moo tax ñu def étude bi c'est pour page suivante régie c'est pour ngeen gis la situation actuelle suñu mbeddu Kaolack gi nii la mel à gauche su ngeen xoolee jaaykatu banaana bi jaaykatu tissu bi borom jakarta yi ak camion malien yi ak camion sénégalais yi nga xam ne dañuy traversé Kaolack nii la ñuy installé wu ba occuper la route ñun nag am nañ ay projet yoo xamante ni commencé nañ ko très bientôt bu ci njëkk mooy bu ñu defee pavage ba pare dañuy mettre en place ay kiosque mooy kiosque yu nekk nële ci kaw ñu ngi commencé bu ci njëkk diggante mairie ak diggante hôpital dinañ fa def 3000 mètres carrés boo xam ne ce sera lu ñuy woowe quartier du cœur ñu defaraate tali yi di ngeen gis service de domanial ñu ngi dinañ leen defal benn présentation dañ ciy boole ay parking parking yoo xamante ne oto buy ñëw di gaare du gaare n'importe où mais bu boobaa day def une participation financière pour aussi ñu relever recette euh, commune de Kaolack beneen bi bii moom projet boo xam ne daaw la woon boobu avant monsieur le maire Serigne Mboup di installé wu am une surface de euh, cinquante hectares fële ci Sibassor pour créer fa benn gaar gros porteur donc camions yi ëllëg ñuy garer n'importe où ci biir Kaolack dañ leen créer gaar boo xam ne ñoom foofu la ñuy garer très bientôt phase suivante beneen bi tamit su ngeen xoolee maa ngi ko doon wax ci sama njëlbeen wax dafa am oto yu ñuy woowee pava ay ay oto yoo xam ne épave lañu dañu garer un peu partout oto yoo xam ne dañu toog ay cinq ans garer ci mbedd bi oto yooyu à partir de maintenant dañuy créer lu ñu woowe fourrière oto yi nga xam ne dañ toog gaare ci buntu kër jàmbur wala ñu occuper la voie publique dañ leen yóbbu fourrière loolu mooy fourrière véhicule fourrière automobile am nañ site bi ba pare ñu ngi ci installation yi très bientôt beneen bi mooy fourrière animalière su ngeen xoolee ça arrive un peu partout nag yi ak mbaam yi ak xar yi da da dañ doon loo xamante ni dañuy occuper le public ñooñu nag dañu créer fourière boo xam ne dañu leen installer de telle sorte que ku ci nekk après da ngay mën a dem jëli sa animal va pas suivant bii nag mooy les gros projets du président du maire Serigne Mboup les cœurs du quartier Serigne Mboup lu mu bëgg mooy koñ bu nekk ci Kaolack mu def fa benn mini marché boo xamante ni day doon ay kiosque loolu lu muy avantage bi mooy ëllëg nit ñi à chaque fois ñuy xëy di dem marché am na yu bëri sa biir koñ nga koy fekk nga ko fay mën a jënd boole nañ ci ak moto jakarta yi defaray arrêt jakarta yoo xamante ni day am restauration à côté am réseau fii mu doon un centre économique de telle sorte que ñëpp dinañ ci gis seen bopp ñu teg ci aussi ay boutiques de marché locaux teg ci aussi boutique pour les marchés de produits locaux koñ bu nekk dina am boutique boo xamante ni li ñuy béy ci Kaolack moom lañ fay jaay pas suivante pas lii tamit gis ngeen avant ñu ngi fi lancé un projet de stade xam ne am nañ fi un stade municipal boo xamante ni euh, budget mairie bi 400 millions la te gis nañu fi ñu ko def c'est pas accessible def nañu étude boo xamante ne très bientôt choisir nañ quelques sites dañuy commencer les travaux mooy maanaam quartier bu nekk zone bu nekk dañ fay defar un un terrain boo xamante ne ASC yi nañ ci gis seen bopp club bi nañ ci gis seen bopp waa koñ bi aussi dañ ci gis seen bopp parce que lépp lu ko wër day am ay cantine am ay boutique am ay moto Jakarta te éclairé jour et nuit ñëpp di ci gis seen bopp njëkk nañ choisir terrain Déggo terrain bustaan bi abattoir nangaan coofak yooyu yëpp am nañ fi ay sites yoo xam ne choisir nañ ko léegi ñu commencer les travaux pas suivant lii tamit ay projet la yu nekk en cours ñu ngi tabax ay post de santé Ngam ñu ngi fay tabax poste de santé Darou Salaam ñu ngi fay tabax poste de santé Nimzat Tabangoy Jaleñ Camp des Gardes Medina Mbaba ak Sing Sing de santé les travaux sont en cours pas suivante lii mooy hôtel de ville bi mairie biñ nekk di tabaxaat buñ nekk di defaraat su ngeen gisee commencé nañ ko toj jóge ko troisième étage lii lañ fa fekk tey mais à côté salle de délibération bi suñu ci paree nii lay mel commencé nañ travaux yi ba pare pas suivant su ngeen xoolee façade mairie bi actuellement tey nii la mel à gauche suñu paree hôtel de ville ne lay mel fu waay romb ci guddi gi muy tàq ñuy gis mairie Kaolack la suivante lii nag projet la boo xamante ni ça me à cœur muy canalisation assainissement du marché centrale de Kaolack am na lu toll 2500 mètres linéaires yoo xam ne ci biir marché bi dafa bouché yii ñu teg ci ay cantines yi ay suuf moo ci nekk barki démb ak benn GIE bu ñu naan deewoo di doom ay doomu Kaolack jël nañ engagement dinañ nettoyer def assainissement wu marché central bi ba mu set wecc su ngeen xoolee foofu nag maa ngi lancé un appel ñi nga xam ne ñoo ŋànk marché bi ñi nga xam ne seen table yi dañ ko teg ci kaw kanaal yi ñoom it ñu jàppale ñu fii ngeen di gis waa ji nekk ni kanaal la dafa feeru suuf ba fees dell mais ci suuf canal la page suivante lii mooy le plan assainissement de Kaolack sit yi nga xamante ne mooy inondé étudier nañ ko wër nañ terrain bi xam na fu ñu nekk bu ci njëkk mooy sama fief mooy xaaxum bi ci topp di coofak cité millionnaire Ndorong yii yëpp mooy assainissement Kaolack commencé nañ les travaux pas suivante lii mooy la situation actuelle gis ngeen kanaalu kanalu Kaolack biin biñ fi ñëwee nii lañ ko fekk te commencé nañu assainissement bi ak ONAS def nañ ci un projet pas suivante def nañ ci un projet boo xamante ni c'est douze milliards sept cent doo xam ne état du Sénégal moo ko ci def les travaux sont en cours loolu ci 4200 mètres linéaires yi ngeen xamante ni kanaal yi ngeen di gis jóge xaaxur ñëw ba ñaari tali beneen bi jaar ñaari tali dem Medina Mbaba moo nekk nii te travaux yi sont à 97 pour cent phase suivante su ngeen gisee bassin wu xaaxut bi moo nekk pont yu bële yële nekk à gauche encadrement yu bële yi nekk à droite mooy bande dawsu bi ndox buy jóge Kaolack jóge Nimza yëpp fii lay jaar traversé Sam traversé Tabangoy jaar ci canal ñëw fii ci bande dawsu bi mu jëlee ko mu jaar géej côté côté kawoon pas suivante su ngeen gisee ma def plan bi lii mooy la situation actuelle lan moo tax sax daaw ñu am tuuti inondation mooy kanaal bi dafa jóge xaaxum ñëw romb buntu kër monsieur le maire Serigne Mboup ñëw ba ñaari tari taxaw foofu beneen bi jóge Medina euh, Mbabba Medina Baye ñëw ba fii taxaw fi mais tali bi moo ko bloqué woon am nañu signature ak waa Ageroute vingt mètres yi ma mel en rouge dinañ ko dagg ci fan yi ñuy ñëw def la connexion ba nga xam ne problème inondation Kaolack yàlla dinañ ci suturaal lii nag li tax ma def ko mooy xaaxut su ngeen gisee mosieur le maire Serigne Boub dafa doon wax moom li ko jaaxal mooy lu tax ñuy jëlee ndox bi xaaxut di ko yóbbu géej te xam ne année bu nekk waa ONAS ñoo ko wax dinañ pomper plus de 4000 mètre cube ndox sàndikuwaat ci biir géej te soo doxee à sept sept cent maanaam moins de un kilomètre am nañ fa toolu ngaan yi nga xam ne soxla ñu ndox pour béy ci suñu salaat yi suñu tomate yi bu boobaa étudier nañ benn projet boo xam ne dañuy jëlee ndox bi fii xaaxut yóbbu ko ci toolu toolu ngaan yi loolu mooy le plus grand projet du maire Serigne Mboup je vous remercie pour votre attention